kon ñaami kenn dootul présenté kenn ci réewum Sénégal ndax ràññeeku gëm ràññeeku woon ci élection présidentielle 2008 réewum États-Unis te mu doon soutenir candidat bi nga xamante ni moo di Barack Obama borom Yes We Can mu nekkoon nag ancien responsable des jeunes démocrates foofee ci réewum États-Unis te mujj jege woon loolu kii di président américain bi di Barack Obama jamono ji nag mu daal di ñibbisi ci réewum Sénégal réew mi mu juddoo daal di investir ci wàllum mbay mi fan yi nag moo nekk di def actualité ndax ay vidéo yoo xamante ni mi ngi koy publier ci internet bi ci yooyee vidéo nag Thione Niang mu ngi ciy xamle ni daal waa police bu Bargny dañ koy fekk ca auberge am boobee nekk ca Sendou di ko menacer. alors salaamaaleykum um, damay def vidéo bi pour jël suñu citoyen que depuis euh, quelque temps bi ma nekkee Sénégal ak léegi suñu police yi nekk fii baat ñi sorewut ak suñu dëkk fi ma dëkk man ci village bi ñu wax dañ ñëw fi di ma di ma harceler di harceler suma njaboot mais aussi ñi may liggéeyal fii suma staff ñun doomu réew mi lañ kenn ëppale wuñu si senegal fi laa juddoo fi laa màggee suma waajur yi fi lañ jógee fi lañ màggee yaa ngi dégg ba am vingt ans ma jógee fii dem uti bitim réew comme immigré yi dem yépp uti bañ utee dañ dem pour demuñu pour dëkk foofu daa may dégg bu baax mais dañ dem pour lu luñ am ñu indiwaat ko suñu réew te loolu laa def parce que mënoon naa toog biir États-Unis wala ma toog Singapore wala ma toog France wala ma dem feneen dëkk foofu parce que liggéey naa loo xam ne mën na ma dimbale ci loolu suturaal ma ba ba may génn àdduna alhamdulilah mais dama ne Sénégal am na lu mu def ci man loo xam ni man dama ko war a delloo njukkal dama war a am lu ma def suma réew because li ma gis man yeneen ñi di def seen réew yi mooy ñoom ñooy suqali seen réew te Afrique ñun doomam yi ñoo ko war a suqali you know bi ma ñëwee ma décidé pour dëkk ci village bu mel nii so I can have a more of an impact in the community and young people fii mooy suma toog ni tey mooy suma kër deux maisons après man général Fall moo ci topp après beneen kër bi ci topp benn tubaab bi ñuy wax Robert moo ko moomoon c'est un français suma jeune yi nekk ci dëkk bi ñëw seet si ma ne ma kër gi dañ koy jaay tubaab bi dafay jaay kër gi comme que tubaab bi moo ko moomoon te ñu ngi koy jaay man ma jënd ko ci suma xaalis boo xam ne dama ko liggéey mu mu mu lew ma. bi ma ko jëndee ma gis ne dëkk bi amul librairie te man Amérique ma nekkoon kon bu ne am na librairie parce que dëkk aussi américain dañuy wax leaders are readers mënoo préparer avenir dëkk te doo leen jàngal il faut ñu am éducation il faut ñuy lire ma ne kon léegi dañuy créer librairie jël staff bi ko ma dem États-Unis uti fa ay livre dem France ak Canada uti fa ay livre def yëpp ci bateau def ci sama xaalis mu ñëw ci biir réew mi fii ma jëlee si ay xarit la décembre bële passé. ñoom ñëpp ñoo jàppale ma ñu peinture affaire bi fay ay jeunes artistes ñu ñëw peinture affaire bi dëkk bi yëpp génn seen ñu ngi may déglu xam na bi ma def ci internet def ci ay ordinateur te loolu lépp kenn du fay jëli benn jeune bu nekk benn indi ko di ko fay muy jàngal xale yi jël xale yi nekk ci dëkk bi ñu nekk ci école bi yëpp bu ñu wàccee free pour ñoom ñu am tutoring ñu mënul lire mu leen mu leen jàppale ñu seen niveau gën a dem tuuti d'accord bi ma demee tuuti. quelques mois dem États-Unis ma ne ma xale yi temps dañu yi xaw ma je sais pas quoi si librairie bi daal duñ gis nit vaut mieux ñu tëj ko dem si def leneen ma leen baa leen dama ñibbi si bi ma ñibbisee Sénégal comme que jigéen ñi dama leen jëloon ñu jigéen ñoo xam ne ñoo nekk amuñu liggéey ci biir dëkk bi ay mag lañ am ay doom ma jël ñuy nettoyer foofu ñii di togg foofu ak toggal xale yi yaa ngi dégg xale yi fay liggéey booy sécurité yi tout le monde on a de beaucoup de jeunes yoo xam ne ci village bi lañ nekk di liggéey foofu ñu ne ma ñun buñ sañoon nag ñu koy defal maison meublée ñu ko defee ñu koy loué parce que am na ci dëkk bi mais benn indien moo ko moom ma ne amul sens indien nekk ci ñëw ba jóge ba Inde ñëw ci biir Sénégal ubbi entreprise fii seen du ko li nga wax royal xuma naka fii ñëpp ci moom foofu la ñuy dem te ñun doomu Sénégal yi nekk fi amul sens quoi ma jël sama xaalis investir leen su ñoom meublé leen ko peinture leen ko def ci lépp lu mu war a def nekk high class mais xamoon naa ne lii dina ñëw yónni leen ñu dem APIX def papier mu légal d'accord am nga ku dem def ay papier mu légal ah, kooku nekk ci lu dëng ñaata ñaata Sénégal ñaata kër nga fi fekk fii Sénégal fii ñu koy loué ba États-Unis sax di ko defee Airbnb ak Booking te duñu am benn kayit mënoon naa ko def ak maison privée du am benn kayit bu at jotee nga fay taxe ce qu'ils font avec Airbnb et Booking et cetera Travelocity ak ñoom ñëpp.

weer dee man Thione Niang maay génn suma xaalis liggéeyuñ fi lu ko def à part été bi seen sortie yooyu man maay génn suma xaalis di leen fayal seen salaire yi barke alxuraan karim mois bi nii leen fayal salaire maa leen di fay ñoom ñëpp si suma xaalis parce que bëgguma ñu taxawaalu am naa ak ñoom relation yooyu léegi ñu mel noonu nga koy def si biir réew ah nga am copie illégale yi nga soxla yëpp ñoom ñu nekk di la chaque jour fekkoon dafa yem kese sax loolu d' accord mais démb dama ñëwaat fii septième fois presque mi ngi nii lii di amal am ay gan yu may recevoir fii yu jóge woon Amérique di reer ak ñoom gardien bi ma dégg xaj di yuux gardien ne ma policiers yi ñoo nekk ci buntu kër bi damañ ci hôtel bi avant de sama kër lañ njëkkee man te sama kër am naa droit man en tant que citoyen du pays euh, am suma kër am fa vie privée ñu ñëw ci sama sama sama buntu kër di di di di di di harcelé sama gardien di enquête ci man ana coon fu mu nekk lu muy def fu mu dugg fu mu génn lan mooy sañ yoon ci loolu. wala ñu benn papier bu leen juge yónni parce que amul lu leen juge wala yónnee man nekk ma ci dara lu illégal d'accord donc amuñu droit di ñëw suma biir kër di harceler di xool man ci li ma nekk chaque jour di ma enquête di ma topp pourquoi fu ñu ko teg comme ça dëkk bi léegi dafa nekkatul dëkk démocratie wala dëkk jàmm wala dafa nekk léegi dafa dictatorship ba nga xam ne loo fi dugg loo fi def dañ topp di la te te ñoom ñi koy def boo ñu ko defee tu comprends ñu ci am problème di ñëw mooy faj seen problème ba pare derrière ils me font des trucs comme ça dama leen jàppoon comme ay suma jeune frère mais il continue di ma attaque di attaque di ñu attaque bay ñëw sama kër ba léegi man je me sens plus en sécurité dans mon propre pays maintenant j'interpelle l'État de mon pays j'ai envoyé une lettre à mon grand frère Aly Ngouille Ndiaye et le commandant pour ñu réagir te lii bëgguma kon def moo taxoon ma envoyé leen lettre bi tey ci suba parce que démb nelaw ma ba ma li dalee ba léegi d' sama gan yi ma seet si dem gis nañ loolu dem ak policier yi ma xëy fajar dem tool ya yi tax ma def vidéo bi bi ma toogee ci biir tool yi añ dañoo raxasu rek ñu wooñu nañu policier yi ñëwaat nañ fa encore fekk fa booy yi da ko ne jël euh, néeg yëpp ubbi ko nga ngàll ko jël booy gan yi fa nekkoon jël seen xaalis yóbbaale booy yi tubaab ñaari tubaab yi fa nekkoon yóbbu leen ñoo xam ne dafañ leen dara dara dara dara yéen di d'accord loolu fan lañ ko teg ñoom bu ñu bëggee bu ñu bëggee kuñ jàpp am nañ kuñ jàpp ci réew mi am na ñuñ jàpp lay wax parce que Sénégal ñun ñëpp doomu réew mi xam nañ lu xew si temps bii bëri na politiciens yi nekk si biir dëkk bi fii boo leen lijjantee xam ne xaalis bi ñu yor dañ ko sàcc. they've stole all their money li musuñu liggéey musuñu am entreprise musuñu créer emploi musuñu def loo xam te ni luy dimbale réew lu lu wax rek ñu jox leen ay position ñu nekk fi di di manipuler le pays ñooñu la war dem gëstu ji même man je paye plus de deux cent jeunes yoo xam ne chaque fin du mois ak ay jigéen ak jigéen jigéen ay jeunes ay jigéen ak ay ay ay xale chaque fin du mois man Sonia maa leen di fay par weer plus de deux cent personnes waxuma ko pour ndamu mais il m'a poussé contre le mur donc je dois parler d'accord maintenant je me sens pas en sécurité chez moi and I'm not but I'm here to to warn them to never come back to my house again du la wax ne bu ñëwati suma kër parce que amuñu droit dugg fii ok su fekkee am na lu leen jaaxal ci man li may dugg ko génn te li may dugg ko génn j'ai fait plus de quatre-vingts pays presque cent pays ci àdduna bi amul benn réew boo xam ne dugg naa fa te mosuñu ma fal comme président mosuñu ma fal comme leneen à part jeune démocrate ma falal mosuñu ma fal leneen te dëkk bu mu ma dem ci kaw suuf teeru nañ ma fa ni ñuy teeroo kuñ fal d'accord dëkk boobu ma dem si aw suuf ba Singapour ci mujj barki dem président daf ma décoré benn ñu def ma commandeur de l'ordre national kan fu ma dem ci kaw suuf Canada France fu nekk teral nañ ma fa mais aussi man jeune à parti ci seen jeunesse sama réew laa ñëw ñuy jël ay policiers ñu may topp ñu may toroxal pourquoi fu ko teg man mënuñu ma toroxal man ci réew mi laa bokk Ñoxo Mboore mooy suma maam Alburi Njaay mooy mooy suma maam suma côté papa Ñoxo Mboore suma côté yaay Jurbel kër Cheikh Ibra Fall la suma yaay juddu ak suma maam Cheikh Ibra mooy suma maam sama côté yaay ak sama côté papa yëpp Aly Ngouille Ndiaye boobu ñoo bokk benn maam kenn ëppale wu ci talent bi nag am na am na no pam mais ragaluma kenn ci biir réew mi fii kenn ëppale wu ma fii donc am na immigré yoo xam ne dañuy ñibbi si pour investir ñu leen di teg choc ñu di lekk seen xaalis yenn policiers yu corrompu yi di leen teg choc benn découragé ñibbi policiers yëpp corrompu parce que gis naa ku mel ni commandant vraiment bu ma fa fekk il est yoo xam te ni macha allah mais ñi corrompu laay wax man. vous pouvez pas me faire peur dem naa fu gën a métti ci biir États-Unis te loolu yëngalu ma woon man sama maam yëpp ay gor lañ yoo xam ne mënu ma ko def gaynde lañ mu ma ñëw suma réew ngeen ne ngeen may lu ma xototal xototal yooyu li ma tax suñu réew mi mënul dem parce que doomu réew ñu mel ni ñun dañuy ñibbisi dañ leen wax ne ay champion di leen jàppale di leen jax encouragé bu leen ma jàppale wu sax ñu encouragé ñu ah yaa ngi sax au moins def dara ci réew mi école bi fii dëkk bi fii def naa fi librairie mbedd yi nga gis ni sama buntu kër ñëwee seen yëpp maa ko def d' accord général Fall jàpp na ma ci ak suma grand bi nekk fii si bi ci des yëpp maa ko fi def jardin bi nga gis ni xale yi ci mbedd bi lañ nekk di njoowaan amuñ fuñ njoowaan ci géej gi la ñu nekk te man sama doom bi ñu ngi États-Unis ma xool loolu mu métti ma ma def ci suma xaalis fii xale yi pour ñu am ñu ngi ko war a ñu ngi ko war a inauguré mois prochain chaque année danaa jël lu mat vingt bourses jël ay booy yóbbu leen ay millions laa ci fay yóbbu leen Dakar ay e te booy yi ci bëri mosuma leen gis bërki dem bi ci kenn yaay papaam gaañoo ñu wax ma ko ma dem di ko jaayee la ma wax ne yaa ma jox bourse ba dan laay am licence musuma ko gis ba ka alxuraan karim xaw ma ko sax su ma romboon du ma ko xamee parce que pour man pour dimbale suñu réew li ñuy njëkk a def mooy envoyé boy sur l' éducation beneen bi ci topp mooy mbay mi ci maa ngi ci maa ngi ciy góorgóorlu li ma amoon ay millions yi ma liggéey yëpp mënoon naa ko def biir États-Unis toog foofu comme sama morom yi you understand but I love everything and come back home puisque président mu ne na ñëw bay ma bàyyi li ñuy def ñun ñëpp mu ne booy nañ dem uti tool ñu dem ci tool yi ñëpp mënuñ ko kaas dañ ko war a jëfee depuis 2014 ma nekk ci tool yi di bay di ci perte xaalis ay millions you understand nekk ci di liggéey di liggéey ba tey yàlla mu ngi mën a jox ay résultats tool yi laa jógee nii ah. dem ne ba tey gii ñu ngi construire ci biir école yi Just Zone Institute ci biir pour booy mars bi ñu inauguré ko pour xale yi mën a liggéey waaw mais man fekkee loolu maa ngi koy def musuma laaj convention. xawma xaalis état musuma am financement état du fii du bitim réew du benn financement international ay nations unies bi yëpp du ma laal seen xaalis amul ci kenn koo xam ne mus na ma financé du USAID du ambassade États-Unis du fekk lépp lu nekk sama tool ak sama kër yi maa ko jëndal sama bopp maa ko liggéey ay kon laa deen Afrique rek liggéey naa ci loo xam te ni mën naa ci retraité ba ba may dund ba ba may dee waaw léegi ay nit yu tekkiwul dara parce que tekkiwuñu dara ñëw fii ne damay benn ci policier dafa ñëw fii ba ci dem la ma booy bi wax indi gel sama si si résidence ba ne ko damay jox leen ma chambre mu ne ko non da ngay fay mu ne ko non man policier laa noonu la ñuy def yenn auberge yenn maison privée yi mu bañ mu ne ko waa baax na fekkee noonu la danaa danaa fermer place imagine ça c'est de la corruption laa nuyu mu ñëw foofu di songu mu hmm? yaa ngi loolu nag damay jël opinion international bi ak national bi ñu xam ne you know autorité yi lay waxal réew mi réew droit la ko suma constitution Sénégal may na ma si suñu seizième article bi que man suma vie privée maa ko moom am naa droit exercer ko suma kër bëggatuma fi gis benn police bu ñëw suma gàll bi fii man I'm saying I don't ne to see them in my house anymore because this is not their place toxuma cigarette toxuma yamba jaayuma ko dugguma ci drogue defuma ko xaw ma ku ci njëkk man li ma nekk mooy liggéey ñëpp li ma xam ci loolu amul fenn ci kaw si àdduna bi foo xam ne dew ma fa te yëkkati drapeau suma réew fépp fu mu dem ci kaw suuf yëkkati naa drapeau suma réew voilà Sénégal suma réew laa ñëw ñu may traité yenn moom ñu may ñu may traité Et c'est la honte, parce qu'on a besoin des champions pour le pays, pour la jeunesse. On a besoin des exemples pour notre, jeunesse. Ils ont besoin des gens qui peuvent leur montrer ñëpp bëgg a nekk président te liggéey yi nekk si xaajul you understand suñu genre gi ñëw we going to work we putting in work we trying everything we can to make something happen for our people two hundred something people I'm paying every single week every single month di leen jox xale yi ñuy liggéey bu ñu weer ñu fay leen ñi ma yóbbu leen ñu dem jàngi au lieu ñu ñu encouragé si loolu bu ñu def loolu dara sax ñu ñuy song dañuy agressé dañuy harcelé dëkk bi amul yoon maa leen di xamal lu leer man du ma ay boy yu ngeen di song di jël seen temps booy taawon laa ci biir temps bi comme yéen you know te maa leen gën a nekk naan te téeméer yoon parce que wër naa àdduna ba pare doog ñëw amul benn booy policier bu mu amatu droit ñëw fii suma biir suma biir dëkk te dana leen porter plainte demain lundi you bind naa les autorité maa leen déglu ci loolu mais puisque dama dem ba tool yi ñun ñëwaat encore suma kër dima arsalay dama bëggoon àdduna bi yëpp xam ne loolu je ne suis pas en sécurité chez moi parce que la police de mon pays est en train de m'agresser au Sénégal pas aux mais au Sénégal what the hell man bu ngeen am bu ngeen lu ngeen liggéey ngeen mën ngeen ko def bu ngeen bëggee ko ngeen jàpp mën ngeen ñun dem jàpp booy yi dem rey sama ma mag ñu ñoo màggatoo màggandoo américain doomam ñu rey ko dem leen ngeen dem chercher bi ñooñu ngeen dem chercher politiciens yi sàcc suñu xaalis bi di ko dugal ci ay euh, appartement France ay Paris di yóbbu seen di jàng booy amaluñu lu ñu lekk police dem leen jàppi politiciens yi rapport yi ñu def yi ne ci internet bi ngeen dem si tey dañu def ci rapport yi ngeen dem fexe ñu jàpp ñooñu mais man ak suma morom yi liggéey ngeen bàyyi ñu tranquille mais what the hell we do man I'm saying this is the only reason why our country can't go mais immigré yéen laa waxal bu kenn ñàkk fayda nga ñëw ñu ñibbi si di la bu taxatal pour ngay delluwaat fii la ñuy toog ci biir réew mi di liggéey ci biir réew mi ok lu ngeen si bëgg nag bëgg naa ko ci am no problem have a good Sunday thank you very much ginnaaw bi les vidéo nag mu publié waat beneen vidéo di ci làkk ay anglais ngir adressé ak opinion internationale bi ca boobu les vidéo nag nga xamante ni anglais la ciy wax moom coon ñaa mu ngi ciy menacé de mort yenn ci policiers yi mu ngay xamle ni sax bu ñu arrêté wul di ñëw këram gi dina ci doon ñenn bali fital nu mbir mi demee dëgg-dëgg nag bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi nga xamante ni police bu Bargny génne nañ ko coon ñaa dafa ubbi ab auberge boo xamante ni dafa nekk dans la clandestinité maanaam jaarut yoon boobu les auberge ko tuddee Sendou International House bu ñu sukkandikoo ci waa police bu Bargny kii di Thionia dafay exploité boobule auberge ci anam yu jaarut yoon bu weesoo benn kayit boo xamante ni ab attestation la bu ko ministère du tourisme jox le 13 décembre 2019 bi nu génn bu weesoo boobule kayit Thione Niang amul benn licence boo xamante ni daf koy permettre mu mën a exploiter boobule auberge ndax kayit googu ko waa ministère du tourisme jox warul mën a tax muy exploiter régulièrement auberge am boobule. waa polise tamit ñi ngi xamle ni demuñu benn yoon ci kër ki nga xamante ni moo di fa ñu dem mooy fa nga xamante ni mooy auberge bi nga xamante ni turu bassiru Niang moo si nekk au lieu de Thione Niang ca boobule patrouille yi nag policiers yi bañ fa demee fekk nañ fa benn couple boo xamante ni dafa jëloon ab chambre ci diir bu toll ci ñetti waxtu ak genn wàll firndeel ni auberge boobu dañ koy exercer dans la clandestinité maanaam ab auberge de passe la. taxawalee foofu xaar ma ma wàcc ñu ngi fi non non non demuñu de na bu kenn dem fenn bu kenn dem fenn que personne ne quitte ici sans procès ñoom bu ñuy soxlaa nañu bind convocation ñu ñëw sans avocat bu kenn génn fi vous n'avez fait rien d'illégal pour dem fenn benn police il y a dans ce pays là. waaw nañ bind convocation bi ngeen taxaw mu avocat ñu dem def leen lu leen di lu leen di yóbboo bul kenn dem fenn laa taxaw leen fii xaar leen ok. non man négocié wu ma kenn man waxuma ak ñoom ok parce que def ma lu may négocier encore internet bi yéen may déglu yéen ñëpp àdduna bi ok. maa ngi nii suma gaale taxaw booy policier yaa ngi fi encore di ma agressé waat je parle je parle avec le gouvernement and I'm this time je parle anglais parce que I'm I'm talking to the whole world. The police of my country is here harassing me, man. And I don't do nothing to them. They over here. You can see my whole staff over here. All the police cars are over here. They say they're gonna they wanna talk to me. I don't have nothing to talk to them about. Okay? Man amul lu may wax ak ñoom. Su ma suñu bëggee wax nañ dem wax ak ku ñu xam. danaa leen porter plainte sama suba ci procureur laa dem dama ay commissariat man bu ñu bu kenn yéen bu kenn génn fii di dem ci ay police. D'accord bu leen bëggee jàpp nañ ñëw sama kër gi jël ma ba pare. ana booy fee yëpp bul dem fenn toogal fii buñ la soxlaa ne ñu ñëw ñun defuñu leen ñu leen di yóbbu ay police buñ bëggee kuñ jàpp am nañ ñun jàpp ci biir town bi man qu'est-ce qu'on a fait pour ñoom ñu ñuy xaraas ni ok qu'est-ce qu'on a fait yo qu'est-ce qu'on a fait what do we do amu man man deserve lu ci town bi man defuma Sénégal loo xam te ni you war nañ ma def lii man man li ma defal Sénégal commissaire ba ma ko oo ko mu ñëw na mu ñëw fii suma gàlle fii la taxawoon léegi dama na ko mu ñëwaat suma gàlle ku fi dugg danga ko rëcc gon laa lay tiré ok man li ma defal suma réew ci àdduna bi deserve ma lii man fii rek laa ñëw ñu may toroxal hmm? waaw bu bu dem ñu lay ñu lay jaay ñàkk fayda wës ñi xam ay ba def suñu town bi yëpp di nekk si biir dëkk bi lijjanti wuñ ko ñu ñëw di ma lijjanti qu'est-ce que j'ai fait lan hmm? laa def lu su ma dëkk ngeen wax ma loolu quoi hmm? pour mes amis français tout le monde qui m'écoute de l'extérieur qui parle français je suis désolé hier c'était en wolof il fallait que je parle en wolof je suis là devant chez moi aujourd'hui encore la police sont revenus encore et harceler mes jeunes et ma famille veulent amener tout le monde à la presse on n'a rien fait nous Et je ne vais pas céder à des affaires comme ça. Parce que moi, j'ai fait le tour du monde. Je ne peux pas venir dans un petit pays comme chez moi il marcelle. Nous n'avons que quoi Comme On n'a rien fait que de créer de l'emploi dans le pays. Les jeunes veulent travailler. Ils ont besoin du travail. D'accord Tout le monde, rien ne, marche dans ce pays-là. Les gens ne travaillent pas. Nous, on revient chez nous. On, crée de l'emploi. On participe sur ce que le gouvernement Tous les gars qui m'appellent sur le truc là, laisse-moi, je suis en train de faire un live avec le monde. OK? You know what I'm saying? And for everybody speaking English to listening to me, this is what's happening in Senegal right now, in my home country. Okay? I'm having lunch with some investors that's coming from all London to come here to help with the farm. And the police coming in my house again. Again. Again, in my fucking house, man. for no reason no paperwork anything nothing whatsoever they bring here to to show that they should be taken sama boy yëpp ñu ne leen di jàpp di yóbbu police pourquoi ñu ñëw fii di sama buntu kër di fa ay big ah? police yi ñëw sa kër amuñu sax big buñ bindee mais c'est pas sérieux sa qu'est-ce que ça veut dire ça ah c'est pas sérieux ça leen fii xaar leen ñu dem ñëwaat nañ dem def fu leen neex nañ dem indi ay contingent bu leen neex ñu ñëw fii danañ ma fekk fii d'accord moi je suis pas n'importe qui dans ce pays ñu ma xamul man xam naa suma bopp dañ leen a yónni pour ñu ñëw ci man danañ ma fekk fii hmm? senegal kenn mënu ma fi bu ndoxatal you know what I'm saying this is my own country I travel all over the world I do so much all over the world I come here and help young people I do everything that I can do in farming I do everything in employment this is a village I don't even live in the car you understand me hmm? nan ñëw maa ngi wàcc maa ngi wàcc ci suuf xaar foofu viens ngi wàcc ci suuf kër gi xaar foofu. Je suis là chez moi avec les jeunes investisseurs, lui qui vient de Londres là. Hein? D'accord Pour investir aux fermes. Ça va toi non. Tout va bien Tu as vu, euh, tu es venu dans un moment où les gens me fatiguent ici là. Hein? Tu viens investir, ils me fatiguent quoi. Hein? D'accord Je suis là chez moi, chez moi. Maison là, j'ai acheté moi-même, j'ai construit chez moi. I I I take care of this place for def kër gi maa ko tabaxal sama bopp te sàccu ma ko j'ai rien volé moi j'ai rien fait d'illégal dans le monde entier tout ce que j'ai fait j'ai travaillé d'accord ils viennent chez moi m'agresser encore ils sont là devant chez moi encore ok ils n'ont qu'à venir rentrer ici wallahi ils regretter ça ah bul dem benn police booy mais lu ñuy leeral amul lu ñuy leeral ñun defuñu lu ñuy leeral ñu lu lëndëm bay leeral xanaa balaa ngaa leeral nga def lu lëndëm d' accord mais pourquoi aller mais bu ñu waxtaan nañu waxtaan fii pourquoi ngeen dem ay ay ay commissariat d' accord bugguma ngeen dem foofu say di génne yeneen affaire avocat laay wut ngeen dem wax ak ñoom sama staff kenn du fi génn sans ma am sans sama avocat ñëw gérer loolu man du may dem foofu di bindante ak ñoom je vais euh, voir le directement boo yéen ma fi toog bu personne ne sorte d'ici d'accord et je veux pas les voir chez moi bu ñu ñëwee bàyyi leen xaj seen kaw you understand yes yeah nobody go all right ana Chris hein il faut appeler Chris hmm? c'est ce qui se passe ici chez nous au Sénégal dans mon pays dans mon pays la police est là encore devant chez moi il ils veulent embarquer tout mon staff et venir dans ma maison rentrer dans ma maison Hein? Si rentre dans cette maison aujourd'hui, vous allez voir des cadavres. Je vous l'assure. Okay? You know, this only can happen in your country, you know. You know, fa nga dëkk doo fa nekk dara. Loolu mooy dëgg quoi. mu koy def live parce que ah, adduna bi je le prends en témoin fii c'est des corrompus ok boo ko deful fii dañoo di la agressé fii xam nga après dañuy def beneen histoire la joxe. yaa ngi dégg ah? ñun ñoo nekk démb tool bu ñuy ñu jóge tool yi ñëw ñun liggéey lañ fi nekkee nekk fi bu ñu bëgg kuñu arrangé mën nañ dem dem nañ dem jël jël ñuy sàcc town bi fii men luy def leen neex mais man def ma lu ñu may songee fii booy hmm? man sama alal dama ko liggéey ah li ma am yëpp dama ko xeex kenn joxu ma dama commencé apprenti maçon laa commencé ci dëkk bi apprenti fucking maçon laa commencé fii ok fii gas gas laa fi nekkee woon apprenti maçon laa commencé ci town bi ba am ay milliards maa ko job kenn joxu ma ko you understand me ok nañ dem lijjanti seen sàcckat yi nekk ci town bi fii di sàcc alal réew mi ku ci jël avion bitim réew fii dem ci bitim réew danga xam man ku ma nekk voilà voilà politiciens yi fi nekk fii di wax maa ngi ñoom bu ñu eggee aéroport ñu xam kan mooy kan hmm? booy politiciens yi policiers yi nga xam ne tekkiwuñu dara ah di ñëw suma kër di ma agressé loolu fu ñu ko teg man États-Unis sax ñi ñu ma def li di ma ko def biir Sénégal waaye pourquoi hmm? on n'a rien fait nous je suis là en train de recevoir des gens ils ici ils veulent me voir je dis non je veux pas les recevoir je veux pas parler avec le commandant je pas parler avec le commissaire je vais aller voir le procureur message j'attends sa Je ne veux pas les voir. Après, maintenant, ils veulent embarquer toute ma maison. Pourquoi hein? Qu'est-ce qu'on a fait C'est un crime d'être Sénégalais aujourd'hui. Hein Il n'y a rien chez moi. Ici, nous sommes On ne fait rien ici. On ne fait que ah, Ma maison est là. Moi-même, moi je l'ai construite mon propre argent, qui m'est légal. D'accord Pourquoi ils vont chercher les criminels de ce pays-là Ils veulent me pousser à bout, laisse-leur venir. Thank you. Bonne journée. Je vous, je vous tiens au courant de ce qui va se passer. Je vais vous